day dikke njaay benn yoon ngay tooy dooni suma doon góor laa daam da feer ana soppey day dikke njaay laa daam da feer dooni suma doon góor président Macky Sall boo tëddee nelaw Cees nooy na ba ni nepp Cees nooy na ba ni nepp jigéenoo du mbaw laay wayal wu réew yi jigéenu Papa Amadou Ndiaye jigéen ñi kontaan nañu ndey dikke njaay ji jigéen a bari jom kii jigéen a bari ngor ci koy sima nga yor ci koy sima nga yor benn yoon ngay tooy ci koy benn yoon ngay tooy jigéen jigéen ci kër mooy jigéen ji ji gën jigéen ju tool ba yaa ji war a na fas te ji tey tika njaay ni ngay jiwe ku la roy far ci mbaax bu wér jigéen ji jiital réewam jiital nag mbaax ci këram foo ne yaa war a jiitu ngir rafet ji ko laadaam de fer foo yaa war a jiitu ngir rafet jikko njaay jaata ceesa ngi lay damoo la dame de président Sall laay wayal président Macky Sall jàmbaar ji laay wayal président Sall doomi Sénégal li ko réew mi jaral bari na kii teg lool da nga ci teg mënoo ci teg leneen waaye yàlla mi ma tiim xam ne ne bég na ndax yéen ñi ma wër bi loolu wéyee eh, eh, maa ngi wax sama sœur Fagey mi ngi fii sama yeneen sœurs yi ñu ngi fii sœuru deret sœuru euh, euh, euh, jamono sœuru politique ñëpp a ngi fi kon maa ngi gërëm ñëpp ku ma tuddul itam bul mer ndax ñëpp a ngi fi waaw Mansour Global So moom dama ko beral nuyoo beral ko ngërëm Mansour Samb waaw lii dafa di loo xam ne que ni dama ko waxoon bi ma fi ñëwee muy le 29 mai ma ne leen woon euh, danaa jàppale jeunesse bi dinaa jàppale sport ndax li tax ñu jàppale jeunesse mooy président de la république ci boppam moo njëkk a jël fonk jeunesse moo nekk ne jeunesse su tey bi loo ci def moom ngay am euh, ëllëg mooy suñu patrimoine donc investissement bi gën a sûr da nga koy def ci jeunesse te kenn mënul taxale jeunesse ak sport loolu moo tax tey ma ñëw fii ci cadre tournoi wu euh, Ndeye Tické Ndiaye première édition ma ñëw doon sargal équipe yi nga xam ne ñoo bokkoon di jouer euh, tournoi bi muy juróom-ñetti équipe tuddoon naa leen léegi ñaar yi ci génn mooy yoonu ndam ak walidaan tey ñoom ñoo jouer final bi walidaan nag jël na euh, raaya gi waaye yoonu ndam liggéey tubaab di wax ne démérité wul lii sport la rek li ci des mooy may yokk rek ci li nga xam ne président de la république def na ko ci jeunesse bi mooy 10 milliards yi nga xam ne consacré na ko ren ci jeunesse dolli ci 3 milliards yoo xam ne que ne ci loi de finance rectificative bu 2016 bi mujj moom daf ci jagale ndaw yi pour ñiy def auto emploi maanaam ñiy def ay seen ay projet lu mat 3 milliards kooku xam nga ne ku fonk jeunesse la mu dolli ci am ne année bii ren muy 2016 daf ko def année wu jeunesse ak emploi ba tey it kooku ku fonk jeunesse am la boo ñëwee nag ci li ñuy wax sport bi aussi daf ci def lu bari mais li ma ci gën a ràññee mooy programme bi nga xam ne def na ko pour construction wu li ñuy wax ay infrastructure euh, sportive programme bi Thiès ak di réhabiliter yeneen infrastructure yi Thiès nag daf ci am lu rëy mooy pro programmé nañu réhabilitation wu stade Lat Dior pour un montant de cinq cent millions ak euh, beneen bi nga yow ñuy wax naan que ne Maniang Soumaré loolu xam nga lu rëy la li ci des mooy euh, ci Jeux olympiques yi prévoir na délégation boo xam ne cinquante deux personnes moo ciy nekk et ku nekk dinga am onze millions de francs CFA waa du ngeen ko tàcc loolu lu am solo la beneen bi bi may mujje mooy li xaw Dakar déggoon ngeen coow lu bari liñ doon wax ci stade Assane Diouf tey stade Assane Diouf Assane Diouf décidé nañu ko delloo jeunes yi te président la république moo ko décidé mais loolu lu am solo la donc ci domaine sport ci domaine jeunesse wax naa leen li nga xam ne moom li ci des nag mooy man li may akkan ci loolu nag laa inscrire ren inscrire ci cadre politique gouvernement bi ak vacances citoyennes yi nga xam ne aussi ci agenda gouvernement la nekk euh, bërki démb la ñu premier ministre lancé vacances citoyennes yi fii ci euh, Guédiawaye ñu dellu si le ministre Mame Mbaye Niang ñëw def loolu fii ci Thiès bi ma ñëwee nag ma boole ci man def lancer journée d'assainissement ci sama gox loolu waxoon naa ko fii cadre de vie dafa am lu am importance ci suñu réew beneen bi ci tegu mooy que ne euh, sport bi bi ma ci jógee nag ma ñëw ci final bi ma fas yéene rek dimbale leen ci sport bi ñu ànd di sport parce que ku dul def sport nag loo sa santé day des day des ku dul def sport sa cawarte day des loolu moo tax ma ñëw bëgg ànd ak yéen ci loolu mais des na benn bu ñuy fàtte mooy sport facteur de développement socio-économique la loolu dañ koy fàtte toujours en tout cas man Ndeye Tické Ndiaye euh, responsable politique ñëw naa fi Thiès ci sama dëkk ñëw bëgg ànd ak jeunes yi ànd ak ñoom di liggéey ci bépp fànn développement waaye ci sport aussi lii ñu fi joxe nag asaka yéene la ñu ngi yaan yàlla bu deuxième édition yee ñu ñu ñu paase ko may leen ñaan ngeen di ko ñaanal di gërëm ñëpp rek sama collègue yi fi nekk sama euh, camarade de parti yi fi nekk ñëpp maa ngi leen di gërëm invité yi samay mbokk samay xarit ñëpp tout le monde jërë ngeen jëf wasalaam. de l'ODECAV et de l'ONCAV, Monsieur les Président des ASC, Monsieur le Directeur Général de Global Sport, Jeunesse Sportive de Thiès, Monsieur les représentants des écoles de football de Thiès, chers frères et sœurs de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, camarades du COJER, population de la cité Ousmane population de Thiès, mesdames, messieurs de la presse, chers invités. Vous me permettrez de vous dire l'immense plaisir que j'éprouve de me trouver parmi vous en ce jour mémorable du août sur le mythique terrain de Tundui pour participer à la finale de la première édition du tournoi des Tikengia Diop. Cette finale s'est jouée entre le Walidane et le Yoonu au lendemain du lancement des vacances citoyennes et organisée en partenariat avec Global Sport. Le tournoi a porté sur huit équipes Fayou, Tunduwi, Somme, Mbour 1, Diankhène, Kocc Barma, Ndam mais engage toute la ville. Mesdames et messieurs, le 29 mai 2016, ici, sur ce terrain, je disais, à ce même endroit, et dans mon discours de rentrée politique, je disais que j'allais mettre un accent particulier à la jeunesse en général et à la jeunesse thiessoise en particulier. En effet, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui sera notre patrimoine de demain. Et le sport constitue un facteur déterminant socio-économique. Il est aussi un facteur d'unité, un lien. Il permet de fédérer au-delà de ses vertus de santé avérées. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, a souligné à plusieurs reprises le pouvoir des manifestations sportives à unir les citoyens et les nations. Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, accorde une grande importance à la jeunesse de notre pays, ainsi qu'au sport de façon générale. C'est ainsi qu'il a décidé de faire de l'année 2016 une année de la jeunesse et une année de l'emploi. C'est aussi la raison pour laquelle il a accordé 10 milliards de francs CFA à la jeunesse de notre pays et 3 milliards pour l'auto-emploi des jeunes dans le cadre de la loi des finances rectificatives de 2016. Il souhaite ainsi activer les vecteurs de, les vecteurs de transformation pour l'émergence que sont les jeunes. S'agissant maintenant du sport, il me plaît de rappeler le programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives. Le stade Ladjor et celui de Manangtuare en bénéficient. Et ceci constitue une parfaite illustration. Lors du dernier conseil interministériel euh, du conseil des ministres décentralisé consacré à la Légion de Dakar, le défenseur de la jeunesse et du sport, Je veux nommer son Excellence le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Il a bien voulu décider de restituer le stade Assane Diouf à la jeunesse. Alors, vous comprendrez aisément pourquoi j'ai décidé de m'inscrire en droite ligne à cette politique pour que la jeunesse et le sport qui soit soient renforcés. Je profite de cette finale pour mettre à disposition de chacune des huit équipes qui ont participé à la première édition du tournoi Ndeiti Ndiaye un jeu de maillots, de paires de bas, de tenues pour les coachs, deux ballons. Un jeu supplémentaire sera offert, et offert d'ailleurs, à un ASC qui s'est distingué par son dynamisme, une ASC, je dirais, et je veux nommer l'ASC Cosmos, portant ainsi le nombre à 9. Le meilleur a gagné et personne n'a démérité. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma gratitude à Global Sport pour son appui combien important. Vous me permettrez aussi de remercier le ministère du Sport ainsi que tous ceux qui ont apporté leur soutien pour la réussite de cet événement. Un remerciement spécial au comité d'organisation et à tous les supporters. À mes camarades de parti, vous avez ici le ministre euh, Tierno Alassane qui a bien voulu honorer de sa présence cette finale. Vous avez le directeur de l'ANAMO, Sidi Diakhaté et tant d'autres. Mbabdoumbao s'est fait représenter, Docteur Ndiaye aussi, euh, Ndeye Awambaye, euh, Mimi, euh, à son représentant, Mimi, je dis Mimi, euh, Malidien qui est là, le COGER est là, tout le monde est là. Et je remercie tout le monde, ce que j'ai cité, ce que j'ai omis. En tout cas, ça me va droit au cœur et je suis très contente de vous avoir autour de moi aujourd'hui pour cette belle finale qui a euh, euh, réuni de nos deux équipes, euh, de, les deux équipes de notre localité. Je voudrais tout simplement dire merci du fond du cœur et vous dire à très bientôt pour un autre événement.